aljuma ñetti fan ci weeru février ma di leen dalal jàmm ci xibaar yi bokk na ci ponk yi ci gën a fës journal hebdomadaire gu bees ga dooleeku ci concurrence gi taskatu xibaar wi di Aliou Top taxawal ko di peko le regard fas yéene ànd ci liggéey bi ak ndawam yooyu la di ay journaliste daañu ci dellusiwaat danañu leen xamal Ousmane Sonko ak meeru Ndakaaru gi lee di Barthélémy Dias demoon defi rek ca CICES ni ki dem ci alxamis gi nga xam ni ca la waroon dem wuy ji tribunal Ndakaaru sant Fejoor te taaloon euh, magasin wu borom këram ga ndax la ma ko takkal ñaareel dañu leen ko xamal dañu leen faram fàccee li tam ci digg xibaar yi laab avocat Ousmane Sonko di métti lu ci tuumaay faux et usage faux gi ñu dolli ci dossier ni ñu koy defee saa su ne mbokk yi ngeen tax yu laa lëf pàkk ba jip ma daal di leen koy yaatalal. mu ngoog bàkk ba jib na nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci sunu gaal 24 dal leen jàmm ci xibaar yi dañu koy door rek gan gu bees gi wàcc ci presse bi mu di journal hebdomadaire gi groupe Eureka Business taxawal ginnaaw journal en ligne am gi askan wi taamu mu di sunu gaal 24 directeur de publication journal bi ànd ceeg journaliste yu xarañ lool ci presse écrite ñu am itam yeneen diplômé wu école de journalisme yu ca dugal seeni yoxo yéene leen baaxee ay xibaar yu lu leer te wóor ak rek dossier explosif ci domaine yëpp ndaw si ne woon chargé wu clientèle bu agence banque atlantique bu Pikine dañu ko teg daanu ñaari atu kaso yu muy tëdd ak ñeent fukki millions yu ñeel dommage ak war ko fay banque ba bu nu sukkandikoo ci le soleil dañ ko dut baaxam ni dafa doon tibb ci compte client wu banque bi li ko dalee weeru avril ba weeru septembre atum 2021 loole nag ngir tàmbalee ci mbirum immobilier banque bi doon ko laaj tribunal u Ndakaaru ndaw si Ah, dafa weddi tuuma ya ni borom këram rek bokk ca terewul ñu teg daan jëkkëram ji moom it mu war a tëdd ñaari atu kaso gannaaw ba ñu dee ko toppee complicité ah, ndaw si sant fejoor te ñu turam dal dinañu koy atte ca tribunal de flagrants délits wu Ndakaaru teg ko daanuko sursis loole gannaaw ba ko borom këram yëgalee ni jël na ñaareel mu mer nag dal di taali magasin am ga nekk ca Fass Delorme le soleil di xam leen ni gannaaw ba ñu ko jàppee ba defeere ko ba su fanweeri fan ak benn la ñu ko placé su mandat de tribunal ga nangu na tuuma ya teg si di jooy naan fiirange gu ëpp dong ko ca dugal daanuk ñaari at yu mu dul tëdd la ñu teg ci ndoddam bésu fanweeri fan ci weeru janvier lañ doon xam le ni rek imaamu daaru rahman de Guilé di Ceerno Tijaan Sàll dafa réeroon ginnaaw bi mu jullee tàkkusaan ba noppi alximisu démb gi la ñu fekk néewam ca bassin ga féete zone de captage libération di wax ni la njëkka a judd ci l'enquête gi mu di ni rek imaam gi woowoon na frère am ga dëkk zone de captage moom mi lee dafa ni rek l'enquêteur yi daa bëggoon waxtaan ak moom ci ay formalité administrative waay papier doomam ñu joxante woon ndaje Ceerno Tijaan Sàll ba muy génn këram nag joxoon na doomam bu góor bi dépense su fukki fan ba noppi dénk ko caabi coffre forum certificat de genre de mort gi leeral ni rek takk der yi gisuñu benn trace violence ak gaañu gaañu ci yaramam niruwul itam ku ñu doon agressé ndax montram baak jaaroom gaa nga woon ca loxoom kurusam ña ngi ko fekkoon ca pocham mbaxanaam yi tam ma nga woon ca weti néewam zakirulahi sow ma nga yendu démb ca kaafu tribunal de grande instance wa ndakaaru ba noppi rek janook àttekat bu démb mu amaatoon retour de parquet ca commissariat central takk der ko tegoon loxo ndax ab coowal juróomi million ci sunu koppar fii ak ëllëg lay janowaat ak juge bi rek mu fay koppar gi way laa ñu yóbbu ko rëbës accident gu metti lool moo daal di am ni ki tey ci fajar gi ay boori huit ci tali Linguère Labgar gi benn 4x4 société gi di Multelec bu bu marque Mitsubishi immatriculé DK 5800 BM waa ji ñu naan Badou mbay doon ko dawal woto ba nag moo saaraan daal di këppu ñaari nit jëlee nañu ci ay gaañu gaañu kenn ka gën a métti lool euh, sapeur pompier bu Linguère ña nga yóbbu woon rek victime ya l'hôpital Magatte Lô Ousmane Sonko gannaaw ba ñu doon ko xaar ni ki démb ca tribunalu Ndakaaru ma nga ànd chef de protocole am ak rek gardam ya doon doxantu ca cité kër góor gi ginnaaw bi ñu renvoyé procès gi nag njiital kuréelu Pastef gi demoon na ca foiru Ndakaaru Alliance pour le développement et l'amélioration des races ñoo ko invité woon rek mu xool exposition ya Barthélémy Dias itam àndoon na fa ak membre yu cabinet ma ci kanamu taskatu xibaar yi moom meeru Ndakaaru gi xamle na fa ni rek dañu ñëwoon rendre hommage président président wu éleveurs yi di ba ndëgëni ginnaaw bi ñu yaakaaree ni Ousmane Sonko tuumaay diffamation ak injure publique dong la ñu ca ci maître Ciré boole loolu ngir écarter Ousmane Sonko ci présidentielle gi ñëw maître nee na mësul gis juge buy ñàkkloo nit ay droit civique am ndax diffamation dong loolu nag doon na lu ko métti ba mu di ko ñaawlu ginnaaw bi ñu ko invité ca émission faram fàccee gay amee ca TFM RFM Lansana Gagny Sakho daf doon dal rek ci kaw ay journaliste euh, yu wax ni rek du ñu xóotal seen ay gëstu bu ñu joxe seen ay xibaar mu jaare fa nak doon critiqué waa CESTI loolee tax taskatu xibaar yu ci ëpp te génnee CESTI doon dal ci kawam di ko tontu yemuñu ca ñu yàq ko xeteme ci réseaux sociaux yi am na ci sax ñu ko génneel ay vidéo yu mu doon xasee Ousmane Sonko la ñu ko ca degal moo di nekk war a am gàcce ci boppam la booy jinne gu mujj ga nag moom Baye Modou Fall dañu ko tegoon daanuk juróom yattu kaso bu mu waroon a tëdd waroon génn 4 janvier gii ñu weesu ci veille bi nag autorité yi ne tëdd na penam yi ci Ndakaaru waaye dese na ko juróom benn weer yu mu war a tëddaat tàmbali ko juróomi fan ci weeru janvier gi ñu weesu ginnaaw loolu nag ñu ne dafa maat geneen dossier ca Casamance kenn ci waa kër booy jinne yi nag neen seen doom amul benn information ci dossier googu nekk ca Casamance ñu ko transféré Casamance ngir mu xam la xew boo jine nag nee na dafay toog ca kaso ba ba fukki fan ci weer wi suñu ko leeralul ci mbir moomu mu lijjantil ko boppam kooku nag la mu yaakaar moo di ne booy jinne dafa fas yéene dawaat collectif suñuy milliards du rees la dinañu janoo ak taskatu xibaar yi ni ki tey ci aljuma ji ngir àddu ci fond covid ya ñu luubal Gaël Babacar Mbaye ma yoroon seen kàddu tey ci bés bi di wax ni rek ñañu di ca tudd yoon da leen war a topp dañu tëraloon ay exigence bëggoon rek ñoom ñëpp ñu démissionné delloo la ñu sàccoon way laa rek ñu nangu seeni bien matériel ak foncier ubbib ay information judiciaire ci ñoom Aliou Sané itam ba mu jëlee kàddu mu ni ndombol tànk yi euh, fonk ñu woon seen ay kàddu wala rek ñuy jébbalu plainte ca table procureur altine juróom denni fan ci weer wi ñu waa nekk mbokk yi li la ngeen andiloon tey ci xibaar fii ci Sunugal 24 dañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës di leen jaajëfal ci ànd beeg safo bi di jaajëfal Mamadou Dóor waar ak bii gi ñu fare woon ci ginnaaw di leen jox dig dajee ba ëllëg incha allah.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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax